أهلا ahlan wa nana lan la yéen a kaay yi xëye fekk leen ma ci le vrai journal moom mi xëy si coow li topp élection législative yi ba xolam sedd ubbil yéen a kaay bi yéen a kaay bi biral daan lu ñel ku jëkk politique gi dañoo mer merde aha maa la ko wax ndax am na ci ñoo xam ne dañoo lànk ne duñ leen investir ñenn ñi tamit dañoo lànk ne duñu bokk si élection législative yi looloo leen metti ñoom ku jëkk politique gi laas yéen a kaay tëll daan na lu ñel yeewi askan wi am na si neuf personnes yoo xam ne si ñoom daanakat ñoo jàpp ne dañ leen a bot yi looloo waral amuñu lu leen neex si élection législative ñenn ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen a écarté wala fañ leen placé neexu leen looloo leen metti si biir yéen a kaay bi maître Moussa Diop am na lu ko metti de aha maa la ko wax ba tax nag mu yàq lu mel na xamee ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall nee na rànkiñe dëgg la bu meree saa su ne da koy wane te da koy denc ci biir xolam lëkku di jee yéen a kaay tëll daan na moo taxit de ku nekk ma ngay wane na moom mer dëgg la fanaanoo ku si mel ne Serigne Moustapha Sy Jamil ak Cheikh Bamba Gueye ak ki nga xam ne moom di Moustapha Guirassy ak Cheikh Tidiane Dièye ñoom la ñu jàpp moom moo di coalition bi si boppam da leen a tuutaal te joxuñu leen li nga xam ne moom moo di seen gëdd lii leen mekk laas yéen kaay tëll daan na ko dëgg la de yeewi askan wi si boppam jamono jii kay amuñu lu leen neex si seen biir l'observateur yéen kaay tëll daan na nag loo ci xamul gis nga yow ñii nga xam ne dañoo jàpp ne dañ leen écarté bu ñu moytuwul dinañ génn yeewi askan wi de aha maa la ko wax ma ne la bu ñu sàgganee kay dinañ ginnaaw boobee coalition maître Moussa Diop la ñuy fekk si Khalifa Sall lu mel ne keteme maanaam coow li lépp moom la ko jiiñ nee na Khalifa Ababacar Sall lim ko meree ba tey lam doon wax sa caisse d'avance ba ak lam doon wax ne mënul nekk candidat lii la ko meree te mooy yéen a kaay tëll daan na askan wi ci boppam fii la ñu toll loo ci xamul nag Barthélemy Dias jamono ji mer na ba futude aha maa la ko wax lu ko metti dëgg la am ñeel élection législative yeeg taxawaay bi ci gaa yi amee tribune yéen a kaay tëll daan a looloo tax nag coow la na kurru seen bi ci woowee waxtu société civile bi moom ña ngay woote jàmm gu mat sëkk ndax jàpp nañ ne jàmm ji dong moom mooy a kaay yi nga xam ne arrangé wuñ leen ñu bëgg koo écarté waaye looloo du fi am de bu leen neexee dinañ bëre bu leen naqaree dinañ bëre ay tàppe dëgg lañu la ko ba seen liste bi ñu boole ko fii ci Ndakaaru bu leen leeree muy seen jàmm ne élection moom du ci am ta seen bakkan lañ ci gar l'info yéen a kaay tëll dalal Barthélemy Dias ba tey nee na nag benn complot lañ bëgg a def de aha maa la ko wax waaye loolee nag duñu ko nangu benn yoon te duñu ko seetaan lii lu ñaaw la si image su Sénégal te nag ñoom ay baadoole lañ kenn xamul lu ñu bëgg jamono ji nee na ci kaw complot boobee mënuñoo nangu benn yoon ay liste ak i parti ak i coalition ñu bëgg lenn écarter ñu bañ a bokk ci yooyee élection loolee duñu ko nangu gaay yi lu ñu bëgg moom moo di séddale bukki bii bukki bii ndur bii sàmba lépp yam si seen biir fi am Barthélemy Dias nee na lu ñeel wàllu parrainage yi mënuñu caa bloqué de aha maa la ko wax ndax fëggu gi nga xam ne moom la ñu génnee si élection locale yi loolee moo leen di topp ba ci biir législatif yi gars yi nag bay boo ñu xoolaat beneen stratégie waaye bii du jàll Barthélemy Dias nee na ci biir Ndakaaru lu nekk jéem nañ ko ci jéem nañoo éliminer Ndakaaru jéem nañoo tabbu maire bu Ndakaaru par décret nee nag tey lu ñu bëgg juróom-ñaari meer ci ville bu ndakaar ñu sàcc leen ci biir askan wi ba pare jël ña leen daal di leen di tabb loolee ci boppam mooy yéene njiit mi Macky Sall Barthélemy Dias ay Barthélemy Dias nag nee na gars yi li ñu bëgg moom moo di fay Ndakaaru waaye loolee du fi am de ma ngay woo askanu Sénégal yëpp nee na na ñëpp jóg takku daal di jàkkaarloog ñi te xam na ay baadoola lañ baadoola nag danga koy wan na ko maa gën a doon baadoola 24 heures yéen a kaay tëll bind ci loolee ba xolam sedd Barthélemy Dias la fa fekk ma ngay xamle foofu di dëggal boppam daan ne gars yu injustice dëgg la ñu àndal ci yëf yi waaye ñun duñu ko nangu benn yoon duñu nangu kenn di dëgg suñu kaw wala di ñu nappaaje source a yéen a kaay tëll daan na may leen ma nopp rek ma wax leen jafe-jafe yi nga xam ne biir yeewi askan wi ñeel état bu Sénégal lan moo ko waral ak élection législative yéen a kaay bi na jàppal ngir récupérer dossier bi nga xam ne moom moo di yeewi askan indi si ba tey it ay soppite Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru dafa xamal direction générale de élections na leen yenn si ay investis dañoo démissionné si boppam ma bëgg leen a indil ay coppite waaye foofee la erreur ba nekk yéen a kaay bi nag nee na ay coppite bu ñu koy indi si liste nekkul ñoo xam ne si dañoo démissionné de aha maa la ko wax ku faatu ci boppam lañ mën a remplacer wala ku dem ba ñu xam ne mënul dem si léegi nag gars yi ñu jàpp ne erreur bi nga xam ne Barthélémy Dias def na ko moo nar a ubbil buntu waa benn Bokk Yaakaar ngir ñu mën a jekk ku jóg politique gi te loolu nag bu ñu moytuwul mooy gàntal ab listam ci élection législative yi looloo metti Barthélémy Dias de ba tax nag mu dem doon forcé gars yi mbéy loo ci mënti dégg élection législative yi moom metti na lool coow li bëri na ci wet ne nag lii kenn àttunu ko ba suba